asalaamaaleykum mbokku internet yi nga xam te ne ne yenn a safoo en TV ti nañu rek ah, ci ah, beneen bërëb ñu seet ki nga xam te ne moo di Ndiogou Afia comme ni ñu ko ah, baaxoo di defee rek chaque magal du Touba nee naa la magal Touba bu daaw ak bu ren wute na lool dañu koy bàyyi rek mu daal di nuyoo comme ni mu ko tàmm di defalee rek soppee mi bu ko defee ñu dugg ci waxtaan wi asalaamaaleykum Ndiogou. lislaam a ngi. Cheikh Bamba moy kiko don tay ngir moy kiko tay lu ba ne jot ci tay ridal ilahi alal khadim di yalla may wax leen jërëjëf Serigne Touba sa jef nako yalla fay kon Serigne Touba jaram mam Cheikh Ibrahima Fall eskey serigne Afiya mbake Falilu ñu ñaanal serigne muntaha mbake yalla fi yag te di ñaanal Serigne Cheikh Jëmm Fall yàlla na fi yàgg te wër di ñaanal Serigne Abo Falilu mu yàgg fi di ñaanal sëñ Afia yàlla yokki leeram taas ñu ci barkeem yàggal fi xalifaam Serigne Baara Afia di nuyu suma baay sëñ Abdou Samane Mbacke Modou Fati Xare ak jëwriñ seen Alioune Gueye di nuyu axlu Mbacke ak Paale nag ñëpp cheikh yeeg ñëpp kilifa diine yi kilifa aada yi di la ziar yow Diez ak waa Hann TV di ziar. fi ngeen ñu fekk muy nindi nindi afiya kër Serigne afiya Mbacke falilu, kiko fi nekkal di Serigne Baara afiya di len wax buñ tambalé ba bañuy jéxal yalla lepp di afiya ay te comme nim ko waxé rek euh, mom moy euh, Afia euh, kenn dootu ko présenter ci mim rew tay nak dañuy waxtaanee li nga xamante ne moom moo le grand magalu Touba gis nañ ne magalu ren ak magalu daaw bi wuté na lool ana lan nga ñu mëna wax ci lool wa màggal ren ak màggal daaw euh, ute na ci benn côté rek mooy chaque année màggal 2001 màggal 2002 moo ko dàq 2002 bu 2003 moo ko dàq différence bi loolu kese la bu daaw bu ren moo daax parce que sëñ Touba ay affaire am day évoluer chaque année day gën di màgg di gën di dox gars yi di gën a comprendre dëgg-dëgg euh, affaire bi ñuy def importance bi mu am euh, kon màggal ren moo moo moo moo dàq bu daaw waaw. kon dañ koy dañ koy sante rek Serigne Touba bu baax a baax waaye bëgg nañu xam Ndiogou euh, euh, tey naka nga waajalee li nga xam te ne moom moo kër gi tey naka la demee woon ak berne yi. waa kër gi ni mu demee tey mooy mooy lu daw yaram rek parce que Serigne bi ci boppam suba ba tey mi ngi berne gaa yi wax dëgg yàlla sëñ Baara Afia moom ku ko xam-xam ne dafa bëgg di bernde xam nga dafay depuis suba mi ngi berne gaay et puis ku ne ñëw na fi ay sëriñ ñëw nañ fi ay politiciens ay marabu ay sportif ay musicien manam sëñ bi dafa njabot di tax ma lay wax lool moy mom ñepp ñoko jublu kon dañuy ñaan rek yalla mi xéer nit ñi ñu jublu ko yalla nañ ko gëna jublu te liñ fi ut si muy Serigne Touba ya, yàlla nañ ko fi fekk am ko fi euh, ngir jariñu ndax képp ku fi ñew rek dafa ñew ngir jariñu ci digënté mak Serigne Touba. waaye ci côté berne bi rek lay wax ba tay ba ngeen xëyee gannaaw ba ngeen wàccee kamine ba nopi ana nan ak nak ngeen ko euh, organiser ba ci guddigi ni nga xam mom lañu nekk fans yëpp di xaar li nga xam mom modi moom yi kanam. waaw ah ci souba ci de berne nañ fi ndekki bu doy war ronaar sama téléphone ba woon la ko. ah ndekki bu doy waar ndekki bu tàmbalee fii ba fële sëñ bi lu ne la jënd gars yi ndekki ba suur añ bi aussi euh, ñii ñëpp ñu ngi woon ci service yi depuis sa ce matin euh, gars yi añ nañ ba suur añ bee ngi fi reer bi léegi mu pare euh, yu sedd yi ndox yi bernde yi moom sëñ bi moom sëñ bi moom da ciy insister bu baax te fu mu toll nii koo gis rek bernde wu na ba ba ba machallah ba machallah quoi berne yi ren mom doyna wa vraiment machallah macha ana lan nga ñu mëna wax tamit euh, euh, par rapport ak euh, serigne bi sa ak serigne bi. ba bon su ma digganteeg sëñ bara fii moom mënatuma ci wax mom lim wax parce da doon jëk wax ne jogu suma suma rak la légui mu bàyyi rak day wax ne jogu suma dom la kon damay jàpp ne moom sama grand frère la sama papa la wa loolu loolu loo lay japp wa waaw. Mhm. mu melni gis nañ ma sha allah talibé yi sha allah takku ma sha allah kon dafa am luñuy wajjal waajal ci bâche bi. waaw talibé yi mom depuis suba ñi nga and ak sëñ bi xëy nañ ci bernde yi and ak sëñ bi dem ci armeer yi ziar sëñ Afia mu sëñ Fallou ndax sëñ Baara mom mo mel nonu ndax. lu koy dikkal rek moom xelam ci sëñ bi lay dem fii dafa fees dell ci suba ku ne bëgg ko ziar te ñu koy ziar ñëpp ku ci ne yor alal ngir jox ko ko moom xoolu ziar bi xoolu alal bi xelam dem ci baayam mu ne kaa leen ñu génn dem ma ziare ji sëñ bi kon euh, loolu day wane ne tey sunu màggal gën na taw feexe temps bu bari daf ko consacré diggante fii ak armeer ya dem ziarte bi ñuy dem dem nañ dem bo am doole bi mu fay jógee it ku ne gis na ne kii soppeeku na trop changé na par rapport ak ba muy dem xam nga ne kii am na am na lu mu yëg bu bu bu bu baax a baax taalibe yi aussi ñi ngi fii ñi ngi fii suuf am na ñu ne ci kaw am na ñu ne ci daara ji ci biti fu ne macha allah ñi di xaw a dallu pour xaarandi guddi jàng nañ alxuraan jàng nañ xasaayit ah def nañ fi sànq ay bégalante yooyu ci biir di ñaan yalla nyu fanane ñu fanane sant ndax sante gi señ afiye moko don def mo daan wote ab sant ñu sikar ànd ko fali Faal yi moom ba mu lu señ afiye di def rek def ko gëna a appuyer ci jëmu ci laal dara parce mom señ sëñ afiye la gëm kon ñuy ñaan yalla yalla nangul yalla na nangu yalla na nangu sunu sunu sant ak suñu màggal waaw ak amin am na ku ko tisoo li fële ndax sëñ Touba daa woote pour ñu santale ko yàlla ñun sëñ Afia moo ñu boole ci sëñ Touba kon ñun sëñ Afia la ñuy sant la ñuy santale sëriñ Touba moom mu santale sëñ Fallou sëriñ Touba xëy na sëñ Touba dox suñu digganteeg yàlla ndax affaire bi étape par étape la waa ñun jàpp nañ ne sëñ Afia lañuy sant moom mu sant sëñ Fallou. sëñ Fallou sant sëriñ Touba sëñ Touba moom mu digganteem ak yàlla mu am leneen lu ci xel daal mooy màggal Touba sëñ Touba euh, musu woote ne kaa leen defee ko benn lieu daf ko doon woote njaareem ku ne di ko def sa kër sëñ Modou Moustapha bu mu ñëwee taaw sëñ Touba ku ne di ko def sa kër sëñ Fallou ñëw ne kaay leen Touba ngeen defee ko fii kon bu ñuy dégg la ca maam sete koy jël ñu dem ba ren. surtout sëñ Fallou ne màggal gi ñu daan defee biir xayra kaay leen defee ko Ndindy suñu xel day gën a dal ñu ne kon li mag ñi amoon muy sëñ Fallou kon ñu ndeke am nañ ko muy sëñ Baara Afia waaw. macha allah comme ni mu ko waxee rek waaye euh, Ndiogou Afia fan si lan nga leen di wax parce que gis nañ ne euh, ñoom ñëpp dañuy bàbbeeku ñëw fii nga xam te ne moom moo di si sa dal bi waaye gis nañ ren changement dafa am fa nga daloon daaw ak ren du benn. waa soppe di leen sant dëgg la bi ma leen nee nindi ñoom ñëpp teew nañ ñi ngi fi ñu ci baree bari it ñi ngi wàcc ngir teew ndax ñoom fu njóog afiye nekk ñu fekk ko fa mais loolu sëñ afiye la man suñ demee ba di ma bëgg sëñ afiye moo tax judduma rek ay nit topp ma yaa ngi dégg sëñ afiye moo def lu tax nit di ma bëgg kon moom lañ koy sante te buñ démé ba am ay fans mom moko barkel parce que bi gaay yi bëggee njëkk taxawal fans club Ndiogou dañ dem HLM wax ko ko dafa am ñu bëgg taxawal fans club Ndiogou Afia fekk dama ko ci doon taggu rek mu né ah ñu won ko carte yi carte yi 1000 francs la won suma joomul xawma 2000 mu jënd mo ñëk jënd carte fans Ndiogou Afia Afia mu jënd ko jënd tisset HLM dem sol tisset bi tisset bi sama photo lañ ci defone mu jënd carte bi premier carte sama premier carte fans moom moo ko jënd te ñooñu borom kun fa yakun lañ moo tax nit ñi di bëgg Ndiogou Afia du Ndiogou dafa garaw wala dafa am xam-xam wala déedéet mais sëriñ bi moo mel noonu waaw sëriñ bi kon dañuy sant sëñ Afia rek kon ñooñ ñëpp soppay sëñ Afia lañ rek aja comme ni mu ko waxee rek euh, macha allah waaye Ndiogou bëgg nañu wax ñu rek ci clip bi nga xam ne moom nga def muy Bamba Fadane nga ñëw ci développé bu baax a baax parce que soppe yi fi mu nekk nii ku ci nekk si ñoom mi ngi waajal guddi yi ndax daanaka fi mu toll nii boo duggee si YouTube bi da fay gis ay millions de vues. oui waaw clip Bamba Fadane bi génnee nañ ko ay jour nii gars yi ñu ngi ci nànk-nànk dem nañ ne bu ñibbee ba ku ne dal dina gën a yokk parce que moment bi ko génnee offrir ko gars yi accepté nañ ko. mais mu doon son bu ma intéressé parce que liñ ciy wax moo tax gars dañ ne Bamba neex na nu ñun te ñoo ngi koy neexal Sëriñ Tuuba rek ci xol leneen da ca xajatul Ahmadu Bamba ku mu saf ajjanaa ngi lay teeru Sëriñ Tuuba ci xol leneen da ca xajatul yàllaa ko jiital fa xadim tuddee ko Ahmadul Xadim sëriñ Tuubaa ree ci xol leneen da ca xajatul raw na aadama ki doom sëriñ Bamba raw na ku ne makule bu ñi aji màkka di dem ci naari di ñëw ku ci bañ sëriñ Tuubaa foo mën na dem kenn du la naw yàlla ne ko yow yonen ne ko yow ku newul yow a dunu saf Ahmadu Bamba yow a yow maanaam dañ ne Bamba neex nañu te ñoo ngi koy neexal fii fii ñu ngi koy neexal depuis suba ñu ne ku mu saf naa ngi lay teeru xoolal ñii koo ci gis rek na ngay gis si moom ñu ne yàllaa ko jiital fa xadim suñ tubaa yàlla moo ko jiital moo ko tuddee sax ahmadou xadim loolu raw na boo bindaguñ nit ñu ne nag maa ko léebu ñuy dem di aji màkk di dem fu ne ku ci bañ sëñ tubaa foo mën a dem kenn du la naw ñu ne ko yàllaa ko ne yow sëñ Tuubaa yàlla moo ko ne yow a yeneen ne ko yow a ku newul yow a du nu saf Ahmadou Bamba yow a yàlla ne ko yow a ku newul yow a du nu saf noot gaynde noot segg ak mëfër mu ne ku noot gaynde noot segg ak mëfër dàq ñay mu daw du du coow ak bëy ñu ne ko kon sëñ Tuubaa noppil tewe yàlla gis na la moo tax bu ñu bëgg gaa yi déglu la après ñu ba ci biir Seexul Xadim après nag daal di lim ama daal ne bambak nasaraan limbal wari bambak nasaraan ma yomba bamba fadaan bambak nasaraan karam basar bambak nasaraan dawme jinne ya fa ne woon dañoo mujj jébbaloo moom mu ne liggéeyal sëñ bamba dee leen liggéeyal sëñ bamba parce que jinne yi wiiri wiir dañu mujj jébul ci sëriñ Touba kon son la boo xam ne dama ne gars yi ay quatre son lañ boole mu nekk son boobu te gars yi ñu ngi koy déglu mais bu ñu demee ba ñibbi après màggal ba gën a toog ba déglu ko dinañ gis li ma leen wax waaw son benn son la mais ci biir am na ay quatre son ba cinq moom lañ boole mu nekk benn son. am na benn soppe sax bu ko jot a wax parce que mi ngi naan euh, son bi duma ma du ma doyal dama koy déglu chaque jour chaque jour chaque instant ma di ko déglu euh, waaye mu mel ni kon fu mu nekk nii euh, fan si xam naa ñoom ñu ngi waaj bu baax a baax ci kanam tuuti incha allah ci bâche bi. waaw yàlla ñu yàlla defal guddi jàmm ñu bégal leen incha allah ci kàttanu yàlla ndax yàlla. moy matal nit day am yaakar rek day ngay gis ko xamne ne Touba lu mu rëy lu mu yaatu yaatu mom japp na ne bas bi ñoga afiyee nek fa la mëna bëggé yaakar la mais yalla moy def yalla bu yaakar tas ñun xamuñu mënuñu préparé nañ nak air yee ngi fi xiin yee ngi fi. pour pour dal Bamba fa daan Bamba bari doole Baara Afia Touba Xeyra Serigne Saliou sëñ Fallou surtout sëñ Fallou tey yëpp ay ñëw xaw ma nag déglu nga sëñ Fallou bi waaw. way sëñ Fallou daa yomb amul coono mooy raxmatal aalamiina Fallou Galas Touba ndey may baayam baay may ndi jaayam mbàkkeeg musoo bela Fallou Galas Touba bàyyi Serigne Modou Bousso Dieng. mi ci mbég meeg taar mi maami sëriñ jiileey fàllu galas tuuba bàyyi sëriñ baara fàllu mi gëm sëriñ fàllu maami sëñ Moustapha laaji baaraay fàllu galas tuuba wii si leen sëriñ fàllu mooy faj aajo yi te moo di sëriñ abo tey moo fi fàllu galas tuuba bàyyi sëriñ ateex sëñ Mamor Sam sëñ Abdou Fatak sëñ Xaban Cheikh mi Mbacke Cheikh Balak Cheikh Abdou Karim Baye soxna Astu Mbacke soxna maam Fatek soxna Mbenn mu yaay jàll Baye soxna maam Awa Mbacke falu Galas Touba Baye Serigne Afe Mbacke suñu yaakaar tey ak ëllëg Serigne Baara Afiya kenn du sa maam Fallou Galas Touba ñun ñi yaakaar Serigne Fallou nañu lewet tabe woyof am fulla am kilifa am jom am diine ni fàllu galas Tuuba bu ñu diingat bu ñu xeeb bu ñu dàq kenn sëriñ fàllu lañ ñëpp yaakaar ndax mooy sëriñ Tuuba lu waay di daw di ko ut xamal ne am nga lu ko gën sëñ fàlloo gën lu waay mën a am barke borom Tuuba kon nañ taxaw lu te sant yàlla mi nu booleeg Cheikh Modou Fadal kasu rajab ku ca dem yàlla na nga dajeeg sëriñ Tuuba après ñu ne armée yi moo ko tabax Ma bëgg sëñ fallu bilay magal gu maggi moko andi Touba ma bëgg sëñ fallu bilay diine jéek yoonu muri sëriñ fallo ko yaatal mo ligé jumaaji xal yoonu Mbàkke ki amu fi nawlé du xoti satir du tas yaakar du daw ku ko laaj lor dem na xewali baawaan gi sëriñ fallu sëñ fallo fi gën sëñ fallo fi gën sëñ fallo fi gën Ma bëgg sëñ fallu bi lay armeri moo ko tabax magal gu maggi gi ko andi tuba jumaaji moko ko def juróomi soror jël ba ca gëna kawé tuddé ko mam Cheikh rafal kon nak mourid be jogal ñu wajal magal bàyyi ko xel magal tuba bisam be fa yàlla buur kay ëskey fa ëskey màggalu tuuba tuuba la woote bu leen ko wuute bu kenn wuute bisu fàllu galas tuuba sëñ fàllu rek mu mel ni dafa mel ni comme ni mu ko ubbee rek noonu la ko tëjeelee bu la neexee tamit mën nañ la bàyyi tamit nga euh, euh, tàggatoo ba noppi euh, daal di tàggatoo ak soppe yi oh. benn bu ndaw rek bu ko defee rek ñi nga xam te ne ñoom ñoo nekk ci extérieur bi nga xam te ñooy safoo Hann TV ñoom tamit ñu mën a dund màggal bi en direct fii ci Touba. waa ñi nekk bitim réew aussi ñu leen nuyu ndax bari na ay taalibi sëñ Baara Afia yoo xam ne bëggoon nañ màggal si mais sottiwul ndax peut-être mbiru Covid bi ak yeneen détail kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare di leen ñaanal jàmm ñaanal xewal di ñaan képp ku fi teew ci kër gi ak ku amoon yéene teew yàlla na nga am afiya suñu jàmbaar ji nag sëñ baara afiya yàlla na ko yàlla sàmm defal ko tawféex defal ko mbég ndax moom jàmbaar la kenn la yàlla na fi yàgg te wër waaw bu mel neex na ba noppi daal macha allah dañuy def lu dul rek eh, daal leen di eh, jox dig dage si kanam fii rek si kër gi fii ci ndax la eh, macha allah daal kontaan nañu bég nañu lol. amati nañu mbégte ak bu baax a baax waxati rek jërëjëf Serigne Touba comme ni ñu koy faral defee rek pare gu ñu de dañuy ànd ak yéen ba événement bi jeex incha allah rabbi ci kanam tuti.